اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد إن ذهب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kon del siwaat nan ànd ak yéen ci sunu jotaay bii di liqaa'aat fiqhiyya ci ñetteelu jotaay bi wala ñoo dugg ci biir liggéey bi ñu jéem a déglu ñaari mbokk wala ñett kenn ku ci ne jéem noo fàttali ci kenn kàttanam li weesu woon ak fàttali bu gàtt loo xam ne la muy wax du ëpp ñaari minute su ko yeesee ku wàññi dara bismillah asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah
dama des ne bi muy jëwee ci quarante rasul la mënu des ndax quarante bu tasbiixu fii ma axbar mooy dëggal lépp loo xamante ne nii lu mu xabaar la lépp lu mu digle rek mu ko di jëf quarante bu fii ma amara topp ko ci yépp digleen léeg-léeg bu mu diglee ñu ko war a jëfee ñu ko diglee wàcc ci naa bu maanaam anhu bazzakir lépp lu mu tere ñu bàyyi ko wa an laa yaabudu allaha illa bi ma shara lu jaamu yàlla lu génn am jàngale laa ko déggee
ayib doxal sëñ bi après la loola mott yi
waaw man damay tàmbalee si dars bu njëkk bi nga xamante ni li ñu waxoon moo doon ay bi bi bi jublu woon si ñetti euh, ponk yi tawkiit yi ñetti tawkiit yi nga xamante ni bu njëkk mooy yàlla moo sàkk moo moom bu waral ndéem moo sàkk moo moom ñu jàmb ni ñu bokkaale dara beneen bi mooy ñu dëkkal ko euh, si fas dëggal ko si ay mel melukaanam yu rafet yi loolu di war a jeexanteel si suñu ay jëf ba ñu jógee si xaaj boobu ñu waxoon ko mottalee ashhadu anna muhammadan ashhadu ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu dugaloon ko si li nga xamante ni moom mooy juróom benn ponk imaan yi bu njëkk bi moo doon tawhid ñetti tawhid yi moo ko jëmmaloon ñu jëmoon si ñaareel bi nga xamante ni moo doon gëm li nga xamante ni mooy malaaka yi te malaaka yi nga misaaloon ci bëri yoon bëriwaay boo xamante ni masalan bi lu koy firndeel mooy nit ku nekk rek am na ñaari malaaka yoo xamante ni kenn ki mooy bind lu baax kenn ki bind lu safaan beneen bi mooy si asamaan si asamaan bi kaw yi am na benn benn kaaba bu ko nekk boo xamante ni ñu soxla 70 malaaka dinañ ko wër bés bu nekk te buñ ko wëree daf ñu ko wër di te ko loolu mooy jiitu sàkkeef bi nga xam te ni mooy kaaru gi nekk si kaw suuf soixante-dix mille malaaka beneen bi bu ñu jógee si loolu ñu ñu ñu ñu waxoon benn ñetteel bi moo doon ñu gëm téere yi wàcc jóge si borom subhanahu wa taala bi nga xamante ni moo ko noonu moo ko tëj mooy alxuraanul karim bi nga xamante ni melukaan borom subhanahu wa taala la bi nga xamante ni moom mooy bi nga xamante ni amul si fu jamono ji fu mu toll ñu war a gëm ni amul coppeeku amul lenn lu ko rax yàlla mooy téere bi mu sàmm ba léegi bopp ba léegi bokk si li nga xamante ni beneen bi ñu war a gëm ñu war a fas mooy moo wan mottali li nga xamante ni moom mooy darse bu njëkk bi mooy gëm yonante yi nga xamante ni yonante yëpp yi nga xamante ni yàlla yónni na leen yàlla yónni dañ leen war a gëm am na nag ñoo xam ne yàlla xibaare na ko am na xam ne yàlla xibaare wu ko ñu xamante ni ki nga xamante ni moo tëj yonent yooyu yëpp mooy ab saa salaam suñu àq nag ci yoon saa salaam mooy am na ay ponk yi nga xam te moom mooy firndeel ni ak topp yoon saa salaam bi njëkk mooy nga nga dëggal lépp lu nga xam te moo jóge ci moom beneen bi mooy jëf jëf lépp lu mu digle jëf si kim kàttan nga mën ba si topp mooy lépp lu mu tere ñu bàyyi ko ñeenteel bi mooy du ñu jaamu yàlla lu dul li mu digal du ñu jaamu yàlla si lu yoon saa salaam digaluwul bi ko mo bi ko mottali mooy ñu gëm li nga xamante ni mooy alaxira ni ñu xamante ni gëm li nga xamante ni mooy nit képp foo xamante ni fu fu yàlla jëlee bakkanam ku nekk fi ko yàlla jëlee bakkanam yàlla dina ko fa dekk taxaw ñu si bés boobu àtte ñu di ko di ko tëj mooy li nga xamante ni mooy gëm ndogal mooy bu neex ak bu naqari te nga yow joxal ci misaal si li nga xamante ni moom mooy wërsëg ku nekk ak ni ko yàlla joxee wërsëgam ak ni mu ko koy joxee ci kaw suuf maanaam dëppoo li nga xamante ni moom mooy fanam ay fanam yu fanam bu gudd wala bu gàtt si mooy loolu mooy li ma teewal si gàtt.
fàttali leen mbokk yi turoo.
Abdallah Ndiaye.
Abdallah Ndiaye. macha allah jazakallahu xayran ala kulli xaal leeral na ko surtout li mu tàmbalee mooy li ci gën a itteel mooy ponk ponk liimaan yooyu ñu doon wax lu ko jotale ak bind bu njëkk la li nga xam ne mooy li ma wax naa bi loolu la ci am solo la ndax moo tax ñu xam lan moo tax ñu ciy wax ndax bind bu njëkk ba dafa mel ne dafa aju ci ashhadu an laa ilaha illa allah ñaareelu bind bi bi di gusee nekk ashhadu anna muhammad rasulullah te ñaar yooyu ci la pas-pas di wéree su wéree waaye ginnaaw ashhadu anna muhammad rasulullah dafa dugg ci gëm yonent yi te gëm yonent yi dugg ci ponk ci liimaan ñu jëlaale ponk ci liimaan yëpp ngir mot leeku leer na li weesu insha allah kon day mel ne ginnaaw laltaay jooju nga xam ne moom lañ tàmbalee muy lu jëm ci jullit bu nekk war a wéral pas-pasam ngir ay jaamu yàlla am bu dikkee wér kon day mel ni mën nañoo dugg ci biir bunt bi nga xam ne moo ñu tax a jóg muy lu aju ci fiq lu jëm ci taxaara muy laab ak lu jëm ci asala muy julli la jiitu ci war ko jiitale ci loolu muy ay tomb yu néew mooy jàngeenu fiq bi nga xam ne moom la ñuy jàngee ñii fi mu nekk ak képp ku jàll fiq sax am na ay lantaay yoo xam ne war nga ko bàyyi xel moo di njàngoom fiq nekkut lu yomb bu sa jafe li ko waral mooy juu yooyu boroom xam-xam yi dafa bari ci masale fiq ngir yi bari lool waaye ndonga li jóg ngir bëgg a jàll fiqul islaam yi mu xam ne wax ji li muy bari bari ak ngir yooyu li ñuy bari bari bari su fekkee ci ahlu sunna wal jamaa lañ bokk ñoom boroom ngir yooyu yi seen jubluwaay benn rekk la mooy xam lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon dañ mën koo jëfe loolu mooy itti ji kenn ku ne la nga doon jéem mooy jéem a xam lan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ba nga mën koo jëfe loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon nag dajewul ci kenn amul kenn koo xam ne ci saxaaba yi mas naa toog wax ne lépp lu yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale xam naa ko déedéet moo tax kenn ci saxaaba yu mag yi daana dem ba taxaw na ci masala laaj kan ci yéen moo fekke woon bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxam na ko wala kan ci yéen moo mokkal lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci masala sàngam su ko defee kenn ci ñi xam loolu jóg taxaw ne ko man di loola xamoon naa ko fekkee naa bis boo xam ne léegi nangam ak nangam xewee nii la ko jàngalee léegi-léegi sax kooko bokk ci gori saxaaba yi te kii doon laaj bokk ci magi saxaaba yi su fekkee ne saxaaba yi doon wëri yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dund ak moom ñoom ñëpp ñoo amul kenn ku mën a wax ne man dajale naa lislaam ci sama dënn bii ak masale fiq yëpp kon keneen ku mën a doon seen gannaaw bu ma ko dajale bi wér su ko defee la ñuy xam mooy fiq kon dajaloo na lépp waaye fan la dajaloo mooy ci dënni saxaaba yëpp maanaam suñ boolee liñ am lépp loolu mooy li yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon jàngale ñoom ñooñu bañ fi jógee dañoo jàngal seeni ndonga kenn ku ci nekk am na ñoo jàngal ñoo xam ne ci yow lañ jànge ñooñee la nga jàngoon dong lañ mën a jàng su ko defee boroom xam-xam yooyu tasaarowaat kenn ku ci ne lislaam yépp dajewul ci sa dënn ginnaaw dajewul ci dënnu saxaaba yi keneen taxut ñu wax waaye ñoom ñëpp suñu àndee ñoom boroom xam-xam yi loolu mooy fiq ci lislaam bi ñu demee ba àgg ci ngër yi nag sosu te ngër yi nu dem cee siiwee ne yent yi ngër la waaye ëpp na loolu ndax yent yi moo sax moo tasaaroo ci àdduna mu ngërub Abu Xanifa mooy ka ca mag ka ca tegu di Maalik ci ay at mooy ca mag gannaaw Abu Xanifa ka ca tegu di Shafii ka ca tegu di Ahmad ibnu Hanbal yent ngër yooyu ñooy ñu gën a siiw tey ci kaw suuf waaye bu leen réere mbir mukk ne am na yeneen i njër yoo xam ne imaam yi yoroon seeni daara di jàngale ndax am ngir kat imaam bi jàngale ci daaraam rekk la Maalik ma nga fële ca Madina di jàngale Abu Xanifa ma nga fële ca Kuufa di jàngale Shafii yi fële Ahmad ibn Hanbal kenn ku ci nekk yaa ngi fi béréb yor sa daara di jàngale booy jàngale da ngay jàngale ba li nga xamoon jeex ci ay riwaaya ci xadiis la ko sës mooy li ñuy tuddee ijtihaad mooy su ma sole ñëwee te bokkul ci li nga mokkalal dalil nga xiyaas ko ci li nga mokkaloon am na ci ñoo xam ne ñoo gën a bari ak mokkal am ci ñu gën a néew leen su ko defee ñeneen ñi nga xam ne dañoo meloon ni ñoom moom nga càpp du ko mel ne Sawri Sufyaan moom nga càpp du ko mel ne al Awzaa'i am nga caa tudd ku mel ne Ibn Jarir at-Tabari ak ñu mel noonu ku ci nekk imaam la boo xam ne ci wàllu fiq yeesoo mukk yenn ci imaam yooyu ñuy siiwee yeesoo leen ci fiq. al-Awzaa'i kenn ku nekk xam na ne fi ñu tuddee al-Maghrib al-Arabi muy soowu jantu réewi lislaam yi ci ngirum Awzaa'i lañ nekkoon ba benn xalifa bi ñuy wax Abdurahman ad-Daaxil bi mu dikkee Maghrib fekk nit ñi ci ngirum Awzaa'i mu dikk indaale ngirum Maalik ginnaaw buur la di àtte mu tirginoo yëpp mu jox leen ngirum Maalik ne nañ ca àttewu loolee moo fa seeyal ngirum al Awzaa'i taxawal ka ngirum al imaam Maalik loolu yi boroom xam-xam bu bind ci taarixul Andalus ñu wax al Maqarri ci téere bi ñu wax na ko tiib saxal na ko loolee kon ñu xam ne jëmmi njër yi kenn ku ci ne danga doon jiima góorgóorlu ngir dajale li nga mën ci lislaam dem nañ bi jëmmi jamono nag am lu ñu tudde ak taasub al madhabi muy ñu xóotal ak aju ci ngir ba kenn ku nekk ngir ma nga nekk day mujj mel ne moom dong mooy lislaam loolu am na ay jamono loolu dafa siiw lool te ay jeexitam sax jeexul ba léegi suñu doon tey jii am na ñoo xam ne ngir muñ nekk jàng fiqam man ca dara wala ñu mën lépp sax dañuy jàpp ne ngir moomee moom mooy lislaam lépp luñ xamul rek day mel ne loolu bokku ci waaye fekk loolu yóbbu bu léegi boroom xam-xam yi nga xam dafay jàngale ba boroom bi tabaraka wa taala may ko mu mën a yër ngir yooyu yëpp la ca nekk nga xam ne daanaka yan ci ngir yooyu dafay mel ne ñoo gàttal li jote ñëw ci ngir yi tasaaroo woon yëpp yàlla baaxee ko ba mën koo jàng su ko defee la jaadu ci moom mooy muy comparer su masala ñëwee mu xool la ca ñuy wax la ci ñuy wax la ci ñuy wax la ci ñuy wax ginnaaw jooyoo am na ci suñ noppee kenn ku ne la nga wax dana am foo ko teg maanaam li ñu tudde dalil lan mooy dalilu maalikee ci masala mi faaw ñu wax ko seeni téere lan mooy dalilu shafii lan mooy dalilu xanafiya lan mooy dalilu xanaabila dalil yooyu su ko xoolee dana xam dan moo ci gën a dëgër lu ci gën a dëgër mu ne lii moo gën a dëgër ci masala bi kii ja- def noonu bu ko neexee mu ne man ci ngër yëpp laa nekk maliki la xanafi la shafii la xanbali la sawri la sax awzaa'i la tabari la leneen laa ndax li ko tax a jóg mooy gën a bëgg a xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan moo gën a wér ci lim jàngale woon ngir mën ko jëfe na ko saxaaba yi doon defe noonu la ko doon defe moo tax li ñu tuddee al manhaj as salaf yi nga xam ne dañuy dellu ca as salafu saalih weesuwul seen pas-pas ñu jële ko ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale bu ñu ñëwee ba ci fiq ñi jéem a xam lan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon moom itam ñu mën a jëfe loolu moyen yi ñu jëfandikoo nag ngir xam la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon moyen bi ci gën a mat mooy mu bañ koo tënk ci benn école maanaam ci benn benn ngir wane ni ngir mii dong laay jàng ndax soo ko defee kat la nekk ci ngir yi ca des te nekkul ci ngir mii te wér yooye danañ la faat loolu mooy waral nit ki jàng jàng ba sonn ba defee ne dégg na fekk am ay masala yoo xam ne du ko mos a dégg sax taf ndax dafa sàggane yeneen ngir yi ca des te ngeen yooyee dañoo mokkal masala yooyee te imaamam loolu nekkul ci am njëram moo tax ki ëpp ab cër ci fiq mooy koo xam ne fu masala wéree day dem jëli ko indi te imaam yi ci seen bopp loolu lañ doon dénkaane ñoom imaam yi ci seen bopp liñ doon dénkaane moo di fu waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jenn imaam ji ci nekk dénkaane nga ne wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ñu ko fekk mu juuyoo lu mosoon a wax moom nee na wax yonent waxi boppam moom lañ ko teg ci suuf kenn ku ci ne wax na loolu al imaam Maalik nee na kenn ku ne danañ jël ci sa wax am ca lu ñuy delloo ba mu des ki tëdd fee joxeñ xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooka rek moom la ay waxam amut lu ñuy jël am lu ñuy delloo moom waxam lépp dañ koy jël waaye nee na keneen ku mën a doon danañ jël ci waxam am lu ñu cay bàyyi ba mu des yonent bi sallallahu lan la ñuy jël ci waxam mooy la dëppoo ak la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon lan lañ dul jël mooy la mu juumoon ndax dañuy juum al imam Malik daana fatwa génn benn fatwa ba àggal duggaat ci téere yi di jàng ba gis ne la mu waxoon du noona mu xëy jaar ci biir mbedd yi ñu wax ne sax day war mbaamam léeg-léeg di yéene ku déggoon ne Malik nee na woon nangam démb na nga xam ne lii la wax tey ñu ko yéeneel boppam ko ñépp dégg ko Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu moo gis ci loolu ci benn masala ci masala bu paraid daf ca atte ñu ne ko yow kat lii bokkut ak li nga waxoon daaw mu ne loolu laa waxoon daaw waaye lii laa wax ren maanaam bàyyi naa lu ma waxoon daaw kon imaam yooyu noonu lañ meloon al imaamu Shafii mooy ci gën a leer lu mu wax daf ne ida saxa al xadis fa huwa madhabi nee na ku xadis wéere loolaay saam ngir ku xadis wéere rek loola mooy sama ngir loolu li muy firi mooy su fekkee am naa wax bu ma waxoon te gisuma ab xadis ñu dem ba mu yàgg xadis fee yi juyoo ak la ma waxoon xam leen ne sama wax ja day nekkatul sama ngir waaye la yonent ba wax mooy sama ngir te loolu dong moo mën am sax ci imaam yooyu ku rafet njort ci ñoom ak xam leen da nga xam ne liñ doon wut lenn la mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la jàngale dañ mën koo jëfe su ko defee nag yoon wi nga jéem a jaar mooy jéemunoo dugg ci jotaay bii nga xam ne jotaay leeral la nga xam ne suñu yéene mooy ku fi jógee li ñor ci masala yi ñuy jàngale dañ koy xam dugg na ci masala naan lii la ci kii wax lii la ci kii wax lii la ci kii wax lii la ci kii wax waaye la nu jàpp ne mooy la gën a dëgër ci masala moom yooyu te na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon noonu rek la mu koy waxee jàng suñ duggee ci masala dañuy jéem a góorgóorlu suñ kenn kàttan ci liñ gis ci ay xadiis ak ci mboolem li nga xam ne borom xam-xam tekk yi yéen jot seeni téere wax nañ ko nu xool la ca gën a dëppoo ak na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon ci niñ ko jàppee su ko defee loola rek la ñuy sukkandiku jàll. nga xam dañuy jàpp ne daal ak xulaasa fiq lay doon ci bunt yooyu yi boo xam ne dañuy jàpp ne nan koy jàngalee mooy doon na gën a jege ci lu ñuy niitoo ca na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon su ko defee nag bunt bi ñu tàmbalee am na benn xaaj bu jëkk bi di taxaara taxaara ci kàllaama wolof moom la ñuy wax laab laab nag mooy set baat bi mooy set laab nag am ay xeet wenn xeet bi moo la yitteel waaye danañ junj yeneen xeet yi ci des ndax solo soo xam ne am nañ ko li wax ne am na laabu xol am laabu làmmiñ am laabu ay cër ñu door a ñëw rek ci laabu li nga xam ne mooy ko fekk gënu tax a jóg laabu xol la ci jëkk mooy laabal xol bi ci bokkaale jullit bi war naa ittewoo ab xolam ba dara ci xeeti bokkaale du ca nekk ngëm yàlla kese tawxiid bu sell mooy nekk ci ab xolam loola mooy tomb bi jëkk ci laabal xol su ko defee laabal xol ci kiñaan kiñaan kiñaan bokkul ak nga gis Omar am lu baax nga ne damaa bëgg a am lu mel ne li Omar am déedéet loolu du kiñaan loolu mooy ñeetaane waaye kiñaan dangaa bëgg a am lu mel ne lim am wala lu ko gën ba noppi lii mu am nag moom na ko jóg na dem xanaa dangaa bëgg xéewal bi ko yàlla jox bu mu ko amati loolu moom baaxul bakkaar bu mag la boo xam ne day lakk ab xol ki ñaan baaxul dafay lakk ab xol ndax ki nga bañ mu am xéewal day mel ne yàlla day naqaral gis mu set soo xëy da ngay gis te xéewalam di yokku sa xol di gën a tàng day feebar di dund ay jafe-jafe te doo ko mën a waxe fenn kon góorgóorlu ba sa xol nga laab laabal ko ba yéene sa mbokki jullit yépp xéewal boo gisee sa mbokkum jullit muy dund sax ak tumuraanke wala metti metti nga yëg ne dafa mel ni yow la dal loolu yi mooy xol bu laab laabal xol ci mbañeel mbañeel bu tegul fenn nga xam ne da ngay jekki-jekki ni diw moom bëgguma boo ko waxut sa lam yëpp loolu ngay yëg fan la tegu am na lu tax xëy na am na lu ngeen di xëccoo mën naa doon xëccoo sax ci xam-xam yéen di rawante yéen ñaar suñ ko tuddee tudd la mën naa doon ci alal suñ ko tuddee tudd la mën naa doon ci ab liggéey suñ ko tuddee tudd la mën naa doon xareñe sa métier suñ ko tuddee tudd la sa xol di tàng ci moom xeetu mbañeel yooyu nga xam ne tegu fenn léeg-léeg mu nekk ay wujjee sax diggante jigéen jigéen jékki-jékki bañ nit lu tax parce que sama wujj la nit ne di la xambale fële kay nit ne di ko xambale noonu di dox seen diggante yooyu xol di defaru dafay laab ba yooyu day dem yooyu yëpp boo ko toppee ay feebari xol la yoo xam ne jullit bi da ko war a it woo laabal ci xolam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kenn ci yéen ak ngëmam du mën a mat lu dul li mu bëggal boppam mu bëggal ko moroom jullitam ki mel noonu xolam defaru na xol bu defaru day am yëg-yëg ci jullit yi yëg ne yow kenn nga ci mbooloo indiwuñ la fi ngir nga toppatoo sa bopp rek dem sa yoon su say ngir baaxee day mel ne lépp baax na déedéet dangaa ñëw ngir seen ngir baax mbiri société bi yépp baax jullit boo dajeel mbiram metti sax mu jaral la jóg sol sol daal la ànd ak moom ba mbiram lijjantiku nga door a am jàmm del si waat loolu mooy xol boo xam ne dafa laab yàlla bu ko yàlla may te kat xol bu laab boobu ci la ñuy rawe ci la ñuy rawe fa yàlla xol bu tilim boroom du raw kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis dafa toog ci jàkk ji di jàngale mbooloo mi wër ko alayhi salaatu wasalaam mu jekki ba mu yàgg mu ne bunt bii de am na ku fi bëgg a dugg koo xam ne ci waa àjjana la bokk loolu lu rëy la ci saxaaba yi ñu jékki-jékki benn waay dugg ak njàppam bu tooy daal di julli kële ñaari rakka dugg ci biir mbooloo mi toog ci ëllëg sa alayhi salaatu wasalaam muy jàngalewaat ba mu yàgg mu ne tekk waxaat la mu waxoon des ko ci waaj a dugg si woon duggaat ak melokaan ba mu yoroon ñetteelu fan ba mu defaat ko ngir ma demewaat noonu waaye ji moom yëgu ci dara yëgul sax ne avant muy tudd yonent mi ngi doon wax loolu kenn waxu ko ko itam bi ñetteelu fan bi amee nag te saxaaba yi ñu fekk ci aw yiw lañu Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiallahu taala anhuma waaye ji génn di ñibbi bi ñu jullee génn ba noppi mu topp ko nuyoo moom ne ko man de dafa am lu dox sama diggante sama waajur wu góor ba tax na fan yii daa mel ne du ma mën a fanaan këram maanaam daal dafa naa génne ci lay junj waaye day waxu ko dëgg-dëgg mu ne ah bisimilah man de sama kër ak yéen yëpp ko bokk yow mu ànd ak moom dem ci këram fekk moom li mu bëgg mooy xool waa ji lan lay jaam lan lay def ba am lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax mu ñëw dikk tëdd ñu bokk nekk ci kër gi gisut daal waa ji muy julli ay julli yu nit ñu julliwul bëccëg beeg gisu ko muy woor ay koor yoo xam ne nit ñu wóoruñu ko li nit ñuy wooree noonu lay woore ni ñuy jullee def seen safaar bi def seen i naatale bi di tëdd li ñëpp di def daal moom lay def tëdd nekk ak moom ñetti fan yow nag tàggu ko ne ko maa ngi teel waaye nag dama bëgg waxtaan ak yow bala maa dem nett li ko li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci moom mu ne ko ah man de wax dëgg yàlla xaw ma day lu may def lu weesu lii nga gis xaw ma ko de kookaat loolu jaaxal ko lu tax ñu jagleel ko loolu bi mu ko tàggoo bay génn mu ne ko kaay mu del siwaat mu ne ko lenn da laa xam mooy daal sama xol bi amul benn jullit boo xam ne ak mbañeelam fanaan na ci maanaam bañu ma benn jullit ah bi mu waxee loolu nag mu ne ko kon lii moom nga rawee nit ñi lii moom nga rawee nit ñi kon mbokk jullit yi xol bi xeex ak moom ba laabal ko ba ñagas ñagas yeeg détails yi dox sa diggante nit ñeeg yi ñàkk sol yi nga xam ne boo ko seetloo yëpp yëpp ba ca fin la adduna mu ñàkk solo mi ba nga ko tax a jóg yooyu yëpp nga dégagé ko teg ko fële xool fa nga jëm objectif bu mag bi nga xam ne moom nga visé muy àjjana lépp lu na la gàllankoor sa diggante moom nga doon ca ak nga sànni loolu ca àll kon xol moom lañ koy laabale xool bi nag su laabee yeneen laab yi ci des yëpp day daal di yomb ndax làmmiñ wi laab mooy ci sës làmmiñ wu laab mooy làmmiñ wax ne du saaga du jum du rambaaj amul jenn lor ñuy génne ci làmmiñ yooyu di lor ko ci nit su xol bi defar foofu làmmiñ bi mel noonu jëw ñu bari dañoo defee ne mooy kii ngay wax ci moom te nekku fi léeg-léeg ñu ne la yaa ngi koy jëw de mu ne bu fi toogal it ma wax ko ak léegi teewul jëw la wala nga wax mu ne waaw li ma ko waxee noonu la mel moo tax ma wax ko man réalité laa lay wax waa léegi nag kooku la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne al ghibatu dikruka axaaka bi ma yakrah nga tudd sa mbokkum jullit fu mu nekkut ci loo xam ne neexu ko nit daal di koy laaj ne ko waaw su fekkee li may wax ci moom daa nekk ca moom nag su fekkee li may wax ci moom noonee la mel yow yonent yàlla bi ndax loolu jëw lay ko mu ne ko loolu yii muy jëw la ginnaaw li ngay wax daa nekk ci moom waaye bëggul ku ko wax loolee mooy jëw su fekkoon ne dangaa wax ci moom lu nekkul ci moom loolu mooy buuram ko noonu la ko waxee de faqad bahatta su fekkee ne loolu nekkul ci moom danga koo dugal kon yooyu ay détails yu mat xam ne la sa mbokkum jullit lépp loo xam ne bu teewoon boo ko ko waxee mu mu naqari ko boo ko ñëwee bu teewoon boo ko ko ñemee wax amaana mën nga ko ko ñemee wax waaye bokk koo xam mu naqari ko loola bul ko ko wax fu mu nekkul li ko mën a wuutu mooy laaye biir sa mbokkum jullit boo gisee ci moom lu dul noona wala yéen ngay toog béréb naan gis naa ci moom nangam wala dégg naa nga ne nangam nga woo ko ba wéet ak moom yow kat saa mbokkum jullit nga te li ma bëggal saa bopp laa la bëggal damaa gis ci yow wala damaa dégg ci yow nangam ak nangam su fekkee dëgg la lool yi bàyyi ko su dul dëgg nag sooy ba nga jéggal nit ñi ndax am nañ lu koy wax loolu yi mooy laaye biir fexe ba làmmiñ li du jëw du rambaaj rambaaj mooy jaxase ay nit am na ñoo xam ne loolu la ñuy liggéey ci biir société bi luñ dikkee di nit ne ko yow de li du sangam wax ci yow boo ko déggoon dem ca keneen ne ko li du sangam yow li bëgg dem jën toog birog sangam diw nee na nangam am na ñoo xam ne loolu la ñuy liggéey loolu ci bàkkaar yu mag yi ci la bokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax nee na ab rambaaj du dugg àjjana maanaam suñ ko fayee ak rambaajam du dugg àjjana alayhi salaatu wasalaam waaye xarit noonu la ko waxee waaye amaana mën naa am nag mu def yoo xam ne mooy far bàkkaar yi wala mu wàññi ko ba tax bu duggee sawar yi man koo génn waaye ginnaaw li yóbboo sawar la moom wattandi ko rek mooy ci daal kon bul jëw bul rambaaj bul xaste bul saaga bul génne lu ñaaw ci saw làmmiñ yéen ko tàmm fexe ba làmmiñ ni day tàmm di wax lu rafet te bañ a wax lu ñaaw saaga ak xaste ci biir kër ay gone nekk fa bàkkaar ba rëy na ndax gone yi ci boppam yaa ngi leen koy jàngal saa boo duggee ci kër dégg ay gone yu saaga xamal ne mag ña dañuy saaga ndax la ñuy dégg rek la ñuy nett kon làmmiñ bi daa jaaduñu laabal ko ba la muy wax lu seen rek lay doon su ko defee cër yi ci des yépp bu ci nekk daa am ni ñu koy laabale bët yi dañ koy laabal ba du xool lu xaraam ubbi nga téléphone di xool jékki-jékki yem ci loo xam ne lu xaraam la gaaw a tëj dem ci leneen lu xaraam la ndax kat foofu la gàkk bi gën a bari suñ jamonoy tey la ñuy xool ci téléphone yi lu bari foofa la xutuwaatu seytaan nekk tey kooku leen lay rëbbee ba jàppale yàqal la la nga doon def lépp seytaane dafa am ay xutuwaat ni ko suñu borom tabaraka wa taala waxee mooy pala la teg boo xam ne ay jéego la boo seetee jéego mu seeti beneen bu gën a sori boobu nga defaat bu gën a garaaw defaat bu gën a garaaw ba keroog mu lay tàbbal nag wala yaasu billaahi mbir ma nga di yàqu bokk na ci yi muy xëcce nit ñi tey di leen gëf di leen yóbbu téléphone yi nga xam ne lu nekk nekk ci biir ci lu bon ak ci lu baax kon bët bi dañ koy laabal ba du xool lu xaraam nopp bi ñu laabal ko ba du déglu lu xaraam loxo bi ñu laabal ko ba du jot niku lu xaraam tànk bi du jox jëm ku xaraam saa boo ko seeni muy waaxu xamal ne ci muy wuli jëm day dox di liggéey wala muy dox di dem ci jàkka ja wala muy dox ak bokk wala muy dox di jàngi wala muy dox di jàngale ji donc su jógee di seet ay jéego daal xam ne ci lu baax la jëm loolu yi mooy tànk boo xam ne laabal nañ ko kon cër yépp cër yi doomu aadama yépp dañ leen di laabal su nit ki laabalee xolam nag laabal ko làmmiñam laabal ay cëram kooku mooy éducation bu mag bi yar bu mag bi nga xam ne ci la lislaam bi sukkandiku defar nit ki ba jullit bi foo ko gisee xam ne bokkul ak keneen ku dul moom ndax ku defaru la kuy dox ci kaw suuf lu bari lu nit ñi di yëg tey ci ay metti metti xolab ay tiis yoo xam ne mënuñu ko wax kenn nag boo ko seetee li ci biir xol bu defarul rekk la xol bu ñàkk a defar xol bu su defaroo rek kii ci des lépp dañuy defar ko tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne alaa wa inna fi ljasadi mudga ida salaxat salaxa ljasadu kullu am na benn cër ci yaram bi boo xam ne su baaxee yaram bépp baax wa ida fasadat fasada ljasadu kullu su fekkee yàqu na yaram bépp day yàqu maanaam xol bi su yàqoo duutu fas lu baax la ko tàmbalee ci bokkaale ba ca yee gën a suufe ci feebari xol yi waaye day daal di wàllaale làmmiñ wi luutoo dégg muy wax lu baax wàllaale cër yi nga dootuñu def lu baax lu bon rek la ñuy def loolu mooy feebaru xol bu mag bi nga xam ne moo gën a garaaw canceru xol boobu feebar moo gën a garaaw ndax da koy yóbbu diine nit ki am nañ fi yàlla mos su ko defee cër yooyu bu jullit bi góorgóorlu ba defar ko li ci des mooy laab gi nga xam ne mooy laabu fekk gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale laab googu yi dafa am ñaari xaaj laabu dindi sobe ak laabu dindi am toj ñaari laab yooyu ñoo am laabu dindi sobe mooy sobe da lay takk nga dindi ko wala mu takk barab bi ngay jullee nga dindi ko wala mu takk ci sa yére nga dindi ko loolu la ñuy tuddee taxaaratu xabas moom dafa xam lu sobewu loo xam ne daa ñëw takk ci yaram bi kooka mënoo def jaamu yàlla gi ñuy wax julli te dindi woo maanaam mënoo julli saw yaram takk sobe wala fi ngay jullee takk sobe wala yére yi nga sol takk sobe déedéet kon dindi googu yi nga koy dindi ba saw yaram set sa place set sa yére set loolu ñu tudde laabu ah laabu lan wala laa wax ak yéen laabu dindi dindi sobe a leer naa ñu ci xel yi ak ci làmmiñ yi laabu dindi sobe geneen laab ga nag mooy laabu dindi am toj kii boo ko xoolee sole nekkul ci yaramam nekkul ci yéreem nekkul ci barab bi nga jullee yooyu yëpp tubaarkàlla set na wecc waaye nag dafa toj le maanaam am njàppam daa toj wala cangaayam daa toj njàppam daa toj ci naka tamit si joxe rek benn misaal ndax dana ñëw ci loolu ci kanam ci lu yàq jàpp dem na ci wana wi tuur ndox raxasu ba set wecc ñëw toog ndax mën naa julli sobe da koo takk sobe takku mbubb meet takkul sobe place bi muy jullee lan moo tax mu war a laab nag mooy dafa toj li loolu mooy laabu dindi am toj waxe ko noonu yi laabub dindi am toj kii laabub dindi sobe ak laabub dindi am toj yaari laab yooyu ñoo am ndax leer na ci ñëpp bu jëkk bi sëñ bi waaw laabub dindi sobe yeneen gi dindi am toj dañuy wax am toj ñaar yooyu su leeree jigéen di daal di xam kon lan mooy li ñuy wax tahaaratul xabas ak tahaaratul xabas mu des nag kii di dindi kii di dindi sobe si ko takk lan la koy dindee maanaam lan lay jëfandikoo ba soobee dëkk ak kii nga xam ne dafa war a dindi toj mii ba laab laab boo xam ne daa war a dem julli ci moom itam lan la koy dindee. salaamaaleykum bu fekkee ne kii dindi sobe si takk ci yaramam wi la. wala ci palaasam bi muy jullee wala ci yéreem yii li gën ci lu mu koy dindee mooy ndox li gën ci lu mu koy dindee mooy ndox waaye nag am na yeneen yu ñu ko mën a dindee lu jiitu ñuy jëfandikoo ndox yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon na nit ki dem ca wana wa moo xam daa tuur ndox wala daa tuur dugub jàngale woon na jëfandikoo ay bant ba set wala jëfandikoo ay xeer ba set waaye nag mu ne yax moom bu leen ko jëfandikoo ak yax bu leen ko jëfandikoo ngir setal sobe si tax saw yaram léegi lu tax yooyu yonent bi yàlla bi mu ne ndax yax mooy ñoomu jinne yi mooy ñoomu jinne yi kon bu leen ko jëfandikoo ngir leen di sobe suñ jamono ji am na ay mouchoir yu ñuy jëfandikoo ci war gi yooyu yi mën naa wuutu bant yi ñu doon jëfandikoo mën naa wuutu it xeer yi ñu doon jëfandikoo ci wàllu setal waaye nag ci kaw su fekkee amoo ndox waaye bi ndox amee nag kooku moom mooy premier choix bi mooy li nga xam ne moom la jullit di war a jëfandikoo waaye léeg-léeg mu gaar la de am na ay réew yoo xam ne xamuñu jëfandikoo ndox mën ngaa ñëw ñu wàccale ci benn hôtel nga dugg ci toilette bi gisoo ko lenn loo xam ne lu doomu aadama mën a jëfandikoo ndox la mouchoir daal lañ la ko tegal am na ñoo xam ne seen civilisation noonu la tëddi kooku itam la yem waaye jullit bi moom jaaduwut wanagam muy mel noonu benn braakol war la kaa nekk mu ngi jëfandikoo boo xam ne ndox la wala mu teg ko ak sata la boo xam ne te lay jëfandikoo ndox kon d'accord nañ ci ne ngir dindi sobe si ndox la ñuy jëfandikoo bu dee dindi toj mi itam dindi toj mi ni nga ko mën a defee mooy ndox ndax benn njàpp lay doon wala tëngaay ndax toj dafa am ñaari xeeti toj waxuma sobe de sobe si ñuy dindi waaye toj mi dafa am ñaar am na toj mu mag am na toj mu ndaw toj mu mag mooy moo xam ne boroom sangu da koo war sangaay da koo war comme ko ànd ak soxnaam ci wàllu sëy comme koo xam ne nan yi dafa génn ci moom moo xam da koo génn wala nu mu def ba mu génn kooka sangu ji moo ko war sangu ndox a koy def ki njàppam toj yi toj njàpp moom itam xamees na ko waaye def na ci dikkaat yooyu yii moom itam ndox moo ko man maanaam ndox mooy jàpp kon d'accord nañ ci ne li gën ci luy dindi sobe mooy ndox waaye nu d'accord nag ci ne li mënee sa yëkkatee dindee am toj dindi ko loola mooy ndox waaye nag am na leneen lu ko mën a wuus moom it ci ka ka ca am ngànt wala amu ko mooy tiim tiim mooy wuusu ndox kooka suuf la ki amul ndox wala am na ndox waaye mënu koo jëfandikoo ci yaramam kooku dañ koy wax ne ko tiimal dana ñëw ci tiim li ñu koy defee li ñu itteel tey ko nu war cee jeexal jotaay bi insha allah ñaata minute moo nu dese moo di ndox mi ndox mi ñuy jëfandikoo ba mën a dindi sobe wala nu koy jëfandikoo ba mantee jàpp wala nu mantee sangu ndox moom yi mooy man ok ndox moomu mooy mooy man ndox ndax ndox mun gis mu ne rek mën nañ cee dindi sobe ndax ndox mun gis rek war nañ cee mën a jàpp wala war nañ cee sangu déedéet du noonu ndox yi boo demee ci yenn téere fekk yi dañ ko séddale ñetti xaaj waaye li wér te dëgër mooy ñaari xaaj la li wér mooy ndox ñaari xaaj yi ndox moo am ndox mu sobewu ak ndox mu sobewuwul wala neexee nga ne ndox mu sobewu ak ndox mu laab ndox mu sobewu mooy man mooy moo xam ne sobe da ca tàbbi ba not ko te fekk ndox mu bariwut lool ba àgg ci xaabaabal am na koo xam ne bu ko ndox xasee àgg sobe mënatu koo lor yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne su fekkee ne ndox xas na mat ñaari mbuuka boo ko mel la tey mbuuka bu ñu ko waxee mooy bu doon tey da nga naan bassin ay bassin ñaari bassin bu la neexee nga waxee ko noonu mbalka yu mag la koy fees su xasee àgg foofa nee na lam yaxmilil xabas nee na sobe mënatu caa jeexital ci misaal benn bassin yi daal boobu ndox boo xam ne mat na wet gu ne mat na ñaari meetar autour bi mat na meetar ñu duy ko ba mu fees akum ndox gone ñëw taxaw colal ci biir bassin boobu nga seen ko muy saw ndax ndox moom mën nañ cee jàpp mën nañ cee dindi sobe ñu ne waaw mënees na ko waaw jeexitalu ci ndox mi jéggi na fa ci sobe su taw noonu di mën a jeexital lii moo tax ndoxum géej ndoxum dex mënees na kaa dindi sobe mënees na kaa jàpp te xeetu sobe bu nekk des na ko sànni ci biir nit ñi danañ saw ca biir géej gi danañ fa faj yeneen i aajo danañ jël mbalit moo xam ne wóor na ne ay sobe bu nekk ni ci biir ñu sànni ko ci biir géej gi te teewul mënees na kaa jàpp mënees na kaa sobe lu tax mooy sobe sa mënatu kaa jeexita dafa àgg koo xam ne sobe sa mënatu kaa jeexita yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo ñëw ci moom ne ko dafa am fii teen bi ñuy wax teenu budaa teen boobu daal xaj yu dee yeeg sobe yeeg morso yi nga xam ne sax jigéen ñi dañoo gis seen baax su noppee foofu lañ koy sànni ci biir teen bi mu ne leen ndox su xasee mag ñaari xul la te mooy loolu ma la wax léegi ñaari mbuuka mënatu lay war xabas boroom xam-xam ñu ñu xër lañ ci ci xam-xam abu daawud borom sunan nee na damaa jël sama kaala ñëw ba ci teen boobee ma takk aw doj yoor kaala bi ak buum ba mu nuur ci biir ndox ma nuur ba jeex bi ma ko yëkkatee gis ne ndoxum teen boobu mat na ñeenti xasab xasab buñ ko waxee mooy lu tàmbalee ci coñcoli ba ci catu baaraam yi boo ci defee ñeent du sore ñaari meetar du ko sori kon ci biir loolu da nga daal di xam dimension ndox moomu nan la toll nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne duutu mën a yor sobe mu daal di ciy jële ci wàllu pratique kon fan mooy koo xam ne bu ko ndox àggee bu ca sobee tàbbee itam duutu ci jeex itam waaye nag ñu xam ne ndox moom yi dañ ciy charte mu doon ndox muy daw wala muy soppi ko ndax ndox mi nga xam daa nekk ci bassin misaal bi ma la joxoon léegi su fekkoon ne bis bu ne dañ ciy sànni sobe bis bu set sobe te dawul soppiku bu yàggee la ko nekk moom nekkatul ndox leneen leneen lay tudd ndoxum teen ni nga ko xam ne du sax day dem kon loolu lu ci mat a bàyyi xel la mooy ndox muy daw bokkul ak ndox mu dul daw moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa xaraamal tere kuy ñëw di saw ci ndox mu dul daw ndox mu daal loolu dañ koo tere ndax lu mel noonu bu yàggee day sobewu kon loolu mooy ndox mu sobewu mooy sobe dugg na ci daal ba nopp ko nga xam ne ku ko gis da nga xam ne lii moom sobe si soppi na benn cafkaam wala aw melokaanam wala xetam soppi ko te fekk sobe si ci boppam moo ko soppi beneen bi ci des mooy ndox mu sobewuwul mooy mu laab kooku li fee mi ngi tudd am ndox maanaam am ndoxum tefe la wala am ndox la moo xam ne dara tàbbi na ci waaye li ci tàbbi lu laab la maanaam am ndox la moo xam ne suñ xumma jël na cere dugal ko ci biir suñu moom cere dafa laab wala déet wala laax wala sax ceeb wala diwlin dugg na ci ndox mi nga xam ne moom la parewaroon ba di ci bëgg a jàpp ndox mi ndox mu laab la woon waaye loolu laab dugg na ci waaw li ci dugg ndax boo xoolee situation bi mu nekk ndax ba léegi am ndox la wala yor na weneen tur soo xoolee nga ne ah waaw ndox mi de dafa am ak diw bu ci nekk ak ñaari ba tey ndox la kon ndox mi de am na lu diig ci suuf xool ah lii de cere la ba tey ndox la loolu la ñu tudde almaaul mutlaq mooy ndox mi nga xam ne ba tey mi ngi yore tuuru ndox kooku jàppal ne mën nga cee sangu man nga ci jàpp ginnaaw lu laab moo ci tab bi te yóbbuwul tur wa yóbbuwul tur wa jàppal ne mën nga ci jàpp mën nga ci sol waaye nag bu yóbboo tur wa nag tudd neneen mën a tootee jàpp mën a tootee sangu luy misaalam am raxas yi danañ fekk am ndox di raxas di raxas di raxas di raxas ba mu yàgg dab yi ci kër gi yëpp ñu raxas ko ci nit ñi ñëw raxas ci seeni loxo nga xam ne bu noppee li ñuul kukk boo xoolee ñu ne lii lu mu doon ñu lii de am raxasu la kon tuddatul nekkatul ma amut loq attaaya bu jël sa baraada dugal ci ndox mi baxal génne xel li ci kaas bi teg lii lu mu doon amul kenn ku la naan am ndox la dañ naan attaaya la kafe nga xel li kaas bi lii lu mu kafe la lañ lay wax moo ne lu laab la de waaye nag nga ne su ci jàpp nga ne su ci sangu lu tax mooy tuuru ndox wa nekkatul kon daal jàppal ne li laab tàbbi ci am ndox li laab tàbbi ci am ndox li fii tuuru ndox waa nga ca mën nga koo jëfandikoo ci dindi sobe mën nga koo jëfandikoo itam ci ah ci dindi lan am tan ahsan ci dindi am tan mooy mën nga cee jàpp mën nga cee sang yor na weneen tur wu dul turu ndox tudd na am raxasu tudd na attaaya tudd na am póotit tudd na kafe tuddatul ndox yooyu kenn mënu caa dindi sobe mën na si caa dindi itam am tan kon yaari xeeti ndox yooyu yi ñoo am yi dañ koy tuddee najis bi ci des ñu koy tuddee taahir waroom xam-xam yi nag am na ci yoo xam dañ koy def ñett jàpp ne mi nga xam ne lu laab da koo soppi dëgg la mi ngi yor tuuru ndox ba tey waaye daal couleur bi soppiku na wala xet bi soppiku na wala dara mane sat cee jàpp waaye loolu dëggarut li wér mooy kullu main tahirin kooku mu taahir lépp ndox mu laab kooku mu taahir ñoom dañuy wax ne najis ak taahir ak mutahir waaye li wér mooy najis moo am ak taahir taahir ci bopp mutahir la maanaam ndox mu sobewu ak ndox mu laab jaar yooyu ñoo am lële mi ca génne loola doonatul am ndox ndax la ca tàbbi te doon lu laab jox na ko beneen tur boo xam ne génne na ko ci daaira almaa ul mutlaq tuddatul noonu kon defe naa ne nodd bi wax lañ ne jot na ñu déglu bopp yi ñu nodd insha allah bu noppee kon ñu del si gàttal li ñu wax su ko defee xool te juróomi minute rek ku ci am lu muy leerlu ci li ñu doon wax wax nañ ne laab xam ne ñaari xeet benn xeet wi dafa aju ci defar nit muy laabal xol ak laabal làmmiñ ak laabal cër yi ci des leneen li ci des mooy laab boo xam ne day tax nga mën a julli googu nekk ñaari xaaj laabu dindi sobe ak laabu dindi am rek yooyu ñu wax ne bu dee laabu dindi sobe la ca gën mooy ndox waaye am na yu ko ci mën a wutu su ndox amut muy leneen lu laab lu nit di mën a jëfandikoo ba sobe sa dañ rek loola baax na waaye nag ci am ndox moom ndox mooy la ca gën bu dee laabu dindi am toj yi itam ndox moo ko man li feeg mu ngay am su amul nag su boobaa tiim la koy wuutu ndox moom yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ngir bëgg a dindi sobe wala ngir bëgg a dindi am toj yaari xeeti ndox rek moo am ndox mu sobewu xam ne sobe sa not na ko ku ko gis xam ne lii sobe la mooma ndox kenn mënu koo jëfandikoo ci dindi am toj wala ci dindi sobe wala ndox moo xam ne mu laab la waaye am na lu jaxasoo moom loo xam ne loola it lu laab la loola nu wax ne li feeg mi ngi ko bàyyee ak aw turam mu tudd ndox xamal ne loola mënees na caa dindi am toj mënees na caa dindi sobe su soppee tur wa nag mu tudd neneen lu dul ndox xamal ne mene sa fi kaa def lenn ci yooyu leer na ah su ma leen ko laajaatee ni ngeen ko waxee noonu incha allah ku ci am lu muy laaj ci li ñu doon wax léegi waaw ñii tontu leen moom danañ sawar ci tontu leen bisimilah.
Cheikh man li may li may laaj mooy waaw li may laaj mooy ndeema kili mouchoir ñuy def si douche yi mën na dindi sobe bu fekkee da nga dugg amoo ndox dafa dugg da dafa da nga dugg si si foo xam te ni di di di faj sa aajo amoo ndox nga fekk ko fa nga jëfandikoo ko ba pare wante nga génn foofu war a jàpp ndax boo boo war a jàpp di nga am ndox ndegam dina dina aajowoo du moment lële mën na dindi sobe ndax dina aajowoo nga jëlaat ndox dem dugg raxasuwaat wala du ko jar day doy loolu rek day doy day doy.
li muy laaj nii lu am solo la mooy dugg na ci toilette boo xam ne ay kayit ñoo fa nekk mu faj aajoom ba pare jëfandikoo kayit yooyu ba pare ñëw ci beneen bërëbu jàppukaay ba fekk ko ndoxum njàpp su fekkee ne am na benn moyen bu mu mën a jëfandikoo boo xam ne mën na ko jëfandikoo ba raxas boppam ci ndox loolu mooy la la jaadu jaaduwut sax muy faj aajo ba noppi door a ñëw di wut si ndox bi waaye daa war a dem fa ndox ma nekk dañuy jàppee bu dee daa am bouteille wala mu am ak satal wala am dara tànk foofee ndox door a dugg ci wane wu faj soxlaam ginnaaw xam na ne ay kayit rekk fa nekk su fajee soxlaam ba àggal mu raxasu ba set door a génn jàpp loolu moom mooy li jaadu waaye su fekkoon ne def na loolu ngir jàpp ne lu mel noonu amut waaye jëfandikoo na kayit ba àggal dem bi mu dikkee ka ñuy jàppee mu fekk ko lu mel ne sata la wala butéel boo xam ne mën nañ koo jël su boobaa day tànn maanaam def na li ko sharia santoon fële wóor na ko ne fomp na ba ko kattal na mi yam jàpp na ne set na su fekkee dafa bëgg lu gën a set bu ko neexee mu jël ci ndox mi dellu setaat waaye bu continué woon jàpp it nag kenn du ko wax mukk nekk su jàpp bi baaxul wala su julli bi baaxul ndax def na li ko sharia santoon bismillah yow la waaw.
salaamaaleykum. Saliou Sène la tudd maa ngi dëkk Gàtt. maa ngi doon laaj Oustaz des fois ñu nekk ci béréb boo xam ne da ngay faj aajo ci géej tuur ndox si géej ñu doon laaj boo xam est-ce que loolu lu def taksir ci kaayinaatul xëy yi nekk ci biir mooy yi dund ci biir géej ñu ñu laaj boo xam est-ce que loolu ndax du def daal jeexantal ci loolu ndax. dina dàggal wala.
ala kulli xaal ndax tuur ndox ci géej dafay jeexital ci mala yi dund ci biir géej wala déet loolu mbirum environnement la jaatu na ci nit wax dëgg yàlla lu mu gën a mën a sellal li ko wër ci ay ndox ak ci béréb lu mu gën a sell rek loolu mooy la ca gën waaye nag ndax doomu aadama ji ñëw foofa rek tuur ko ndox loolu mën na rey mala ya fa nekk wala yu mel noonu loolu la ñuy wax ne jàppee jàppuñu ne noonu la demee waaye nag su nit ñi aadoo seeni tefes ak seeni place ñu di ko salteel mën naa dem ba àgg ci anam goo xam ne mala ya fa doon dund yëpp dañuy sonn di dee wala ñu daw sax dem feneen ndax feetu salte wu fa nekk woo xam ne wu jéggi dayo la loolu moom mën na koo jur loolu moo tax ku mën a seetal béréb yooyu te dañ faa tuur lenn loo xam ne lu koy yàq la loolu moom la chaque na moom mooy mooy li gën te mooy lu jaadu ndax lu gën a set gën a laab rek loolu mooy li gën a lislaam naam bismillah déedéet àggul ci war maanaam jëfandikoo lu lu tóol ci xeer yi wala bant yi nekk loo xam ne lu war la am na sax nag xaddis yi ci rob ne na jëfandikoo lu lu kii waaye àggul ci doon doon loo xam ne dafa nekk lu war waaye sopp nañ ko sopp nañ ko dañ ndax fi ñu koy xiyaas mooy su fekkoon ne day day raxas dara dañuy dañ koy digal muy raxas cër bi ñetti yoon mu di ko raxas ñetti yoon ginnaaw bant bi ñuy jëfandikoo wala xeer bi moom mënee su koo konteel ñu ne kon lim mën a konte muy ñetti ñetti xeer wala ñetti bant nga xam ne mooy tolloog ñetti raxas yoon war a raxas cër yi ca des xadis bi ci rot noonu la ko waroom xam-xam yu firee waaye nag ci kaw sopp la luñ sopp la waaye àggul ci nekk loo xam ne lu war la nga xam ne bu jëfandikoo ñetti xeer wala ñetti bant day mel ne baaxul déedéet àggul foofu naam
relative mooy nii ndax am na ay moyens yoo xamante ne dina jàppale nit ki ba mu mën a raas xolam comme ni ko xaalis bi waxee.
waaw ni nit ki mën a def ba laabal xolam day ab liggéey la ndax bokk na ci li gën a jafe ci nit ki muy bëre ak xol xol dafa jokkoo li ñuy tudde nafs maanaam xeex ak bakkan ba not ko lenn ci salafu saalex day wax ne xeex na maag sama bakkan fanweeri at door koo not kon nekkut loo xam ne lu yomb la la ci jiitu mooy di ñaan sa borom tabaraka wa taala jekku sa bakkan bi ak sa xol bi ba mën koo laabal mu dimbali la ci loola ndax ku yàlla dimbali loola mën naa yomb ci yow leneen li ci des nag mooy ni ñuy fàggoo lu baax rek di jéem a saxoo jàng alquranul karim tudd yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal jullit yi fuñ nekkul loolu dana defar xol toog fi béréb boo xam ne da ngay ñaanal mboolem kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñëpp nga fexe ba yéene leen jàmm ñi ci gindiku nga sant yàlla ca loola ku ci gindikuwul nga ñaan yàlla mu gindi ko ba mu jaar ci siraatul mustaqim ñaanal ñëpp ñu tàbbi àjjana ëllëg loolu yi bokk na ci li nga xam ne day defar xol ba duutu nëbbal nit ñi ak mbañeel wala ak kiñaan bokk na ci di ànd ak nit ñu baax ni nag di ànd ak nit ñu baax ni di jaxasoog ñoom di jëflanteeg ñoom di leen roy ci mbaax googu yi nga xam ne dafa nekk ci ñoom loolu ci li dimbali nit ñi ci loolu ci la bokk boole nag say mbir yépp nga jéem ko tënk nag ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtandiku yi nga xam ne yépp seytaane da koo teg mu doon ay fiir yoo xam ne boo ci jaaree dalay jàpp nga di ko teggi lay tax nga mën koo teggi nag mooy làq ko fi sa gannaaw borom bari lay tudd yàlla bari lay jàng alquran bari lay julli ci yonent bi booleeg sa lépp nga tënk ko ci sunna soo ko defee fiir yi seytaane yooyu dana ci mën a mucc insha allah yal na nu ko yàlla may salaamaaleykum wa rahmatullah waa man damay laaj ndax xaayida bi nga xam ne moom nga joxe ci li soppi am ndox ba mën a tax du ci mën a laab loola bu fekkente ne mën na koo soppi ba pare te du soppi tur wi lu ci mel ni xomaag ndox moo xam ne dafay jaar ci ab téwo te téwo ba dafa xomaag ba ndox ma xonq yaakaar naa ndox mi moom dafa xomaag rek lañ mën a wax waaye wutal ko weneen tur dana jafe foofa nag fu ñuy sukkandiku ba mën a xam ba xam mën nañ cee laab wala déet salaamaaleykum wa rahmatullah lu am solo lay junj noonu yi mooy ndox mi nga xam ne daa soppiku te fekk li ko soppi lu dëkk ak moom la waaye loolee dëkk ak moom nekkul lu sobewul waaye taxul it ñu yóbbu aw turam nag am na ndox moo xam ne fi mu taa kër yi ña ko nekkoon mu nekk ndox mu ñuul kukk am ndox la ba tey melokaanam soppiku na waaye li ko soppi nekkul sobe jaar na ci téew boo xam ne dafa xumaag soppi na melokaan wi waaye yóbbuwul tur wi ci ni mu ko waxee am ndox lañ koy tuddee su boobaa la ngay xool mooy ndax xumaag sobe la wala du sobe ah yéen lu ngeen ci xalaat sobe la wala du sobe du sobe su ko defee bu boobaa ginnaaw yóbbuwul tur wa rek dañ naan ndox bi génnee ci robinet bi tey jii moom daa xonk sooy léeg-léeg mu am sax su boobaa it ndox boobu jàppal ne mën naa dindi sobe mën naa jàpp mën naa sang ñu jël bu mujj wala microphone xoolal kenn rek
alhamdulilah docteur ñu ngi lay ñaanal yàlla na borom bi subhanahu wa taala boole ñu sàmm ñun li ñuy laaj moom mooy ci li nga wax nii léegi am na benn ba nga xamante ne dañ fay faral di fa dem bëggoon ko dégg waaye dégg ñu li ci mel ni ab piscine piscine ndax ndox boobu noonu dana nekk mu doon ndox ba nga xamante ne mun naa laab man loolu laa di laajte ndax li nga wax sànq ñi da ci bokk ñun bërëb bu ñuy nekk fenn fu ñuy tukki ñuy dem la toilette yi foofu amul ndox waaye piscine bi léeg-léeg moo ñuy gën a jege ñu werante si mun naa jàpp mun ta jàpp mun naa jàpp mun ta jàpp waaye nag yàgg nañ see jàpp yàlla nañ si yàlla na ala kulli xaal mën naa jàpp loolu la ñu jàpp ndax piscine sobe nekku ca soo xam ne dafa soppi melokaanam maanaam du sobe su su ca nit ka doon sangu ba ba mu tilim sax dañu wax ne lii tilim la waaye du sobe nag maanaam tilim gi tax ci yaramu doomu aadama li aw ñàq di ko indi wala suuf wala yu mel noona loolu du sobe lañ sangu ba nga xam ne boo xoolee couleur bi da nga xam ne xaw naa soppiku waaye li ko soppi du sobe su boobaa day gudd ci li yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi waxoon biñ ko laajee ca teen ba ne ndox mi su xasee na benn quantité bi rek mënatu la yanu sobe su boobaa atte boobu piscine moom lay yor parce que piscine moom kenn ku ne xam ne ndox mu baree baree bari moo ciy nekk ay nit door caa mën a dugg di ca di ca féey wallahu aalam noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu nangul nu te defal nu tawfiq ba diineem ji nu mën koo jàng mën koo xam ci ak yombal wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain borom laaj bi incha allah danañ ko jéem a tontu ci jotaay bi ñëw incha allah اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل